ñu wéyal sunu doxantu bi fii ci Fentel Somb nekk ci commune bu Ngoye département bu Diourbel ak programme PUDC bi wax Sénégal wax ngel këpp ñu jagleel ko village yi ngir fépp leer am ndox yoon ak matériel post récolte lu ci mel ne machine wol soq wala bojj ba dootuñu namm daraay waa wataax yi fii ci Fentel Somb nag askan wa ko dëkkee bég nañu lool ci piste rural bi doon tey tali bu ñuul kukk ba tax seen digganteeg njaareem doonatul dara charrette oto lépp ne fa affaire godoron ji nga xam ne am nan ko jafe-jafe ji fi amoon suñu dem ak Jurbel rawatina waxtu wi ñu ne buñ ko mosaa def force yi néew doole ñetti nit ñeenti nit juróomi nit yoo teg ci force bi ak bagage lu mu néew néew force ba day tele ndax ngooñ dootul am dara du am force yi néew doole loola ba godoron bi taxawee ba bés ni tey fii ñu toog loola deñ na léegi dangay toog defar say defaru muy góor muy jigéen nga defar la ngay defar bo diggante 10h ak 11h ak midi nga dem ñaarem def fa la ngay dox ñëw ci tok bo euh añ eh, tisbar dem jurbel del wat legi fofu wal wo am nañ ci cantement bu baxa baxa bax ak contentement sun digg gorma bi foofu moom jaaraama di nuyu di len ziar bu baax baax man may tuddu hadisar maa ngi dëkk Fentel Somb man maa fi teewal jigéenu Fentel Somb wax dëgg yàlla tali bi am na fi njëriñ trop ndax jigéen dafi doon mattu ñu war laa yóbbu hôpital avant boobu tali bi amul dañ lay dugal si sareet ran-ran bi xam nga dafa metti mun nga balaa ngay yéegu hôpital yàlla may la wala yàlla def lu liggéen daal waaye instant bi wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ndax instant bi so matuwe wala nga dugg si kii si tali bi di nga yëg ak jàmm te dara dula dal daal sante yalla bu baax instant tali bi moom wax ma sha allah lu fi indi bari na ndax da nga doon am gan nga wara ndugg sa ndugg wala gan bet la do xam ni nga dekk bi du am jeun do am ginar bo re nga wara si tata bi dem dem dugg ñew lolu yep tali moko fi def soo amoon gam doo am noo def dangay dugg dangay togg ceebu cax wala ay mbaxal lu kenn xamul waaye instant yi wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax loolu yëpp dañ na fi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dëkk bii nga ñëw dëkk bu jara ñëw la ndax dëkk bi moom ñu fi nekk dañuy góor góorlu bu ma yeboo ma ne lépp loo fi gis lu ci bari ñoom ñooy góor góorlu ba mu taxaw fi amna nak lo xamne gouvernement bi jappalé nañu ci comme ni niñ ko waxee rek muy yoon bi muy lo am solo amoon na jamono moom wax deug yalla dem joge fi dem ndiaré mom lu jafe la won ak suba rek nga ko monon da nga don tok ba heure bi nga am malade wala nga soxla ndiaré do meuna dem légui lolum nak mom wax deug yalla sunu borom saafara nako gouvernement bi góor góor na ci ba loolu moom jàppandi na. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi salaa salaam ngi lay nuyu. sant nañu sunu chef de village ci kàddu yu rafet yi nga xam ne jot na ko fi jàllale eh, ci wàllu imaam nag dañ fi toogal imaam bi toogal fi eh, mbooleem umma islaam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Fentel Somb eh, dila wax ne yoon bi nga xamne ne Mojo ndiarem ñew ba somb yalla def mu yemagum fi amna solo lol señ bi ndax comme niko chef de village legi euh deug nga ko bu baax ndax ñun ay tout tank lañ won euh, di jëge fi di dem ndiarem di fa euh boba jamono metti na trop ndax booba yaakaar naa ne comme nu mu la ko waxee njaareem bu heure bi jotoon pare nga ci njaareem bu 10 heures jotoon te jogoo dem njaareem doo dem njaareem xanaa subaati te booba alxemes ba alxemes ngay mën a dem njaareem ndax doo gis loo war waaye léegi nu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax njaareem léegi amatul heure heure boo bëgg a dem dem sunu soxna yi fii la ñuy jóge di dem nduggi foofu ñëwaat toog seen añ te du du yak dara ci seen i liggéey bu dee it war nga dem tol, bu la neex nga dem tol ba midi nga wacc sangu ba set ñew tata bi jël la yobul la ndiarem nga dox li ngay dox bala 3 heures nga mëna ñew delu gontu sa tol lolu amna solo lol li ci teggu suñu digante ak bundu fi nga jaar legi amna poste de santé bo xam bi mu ngi fofu ku ci am yaram bu tang ci xalé yi bo taxawé fi fay 150 mu yóbbul la ca poste de santé ba nga ñëw ñu xool sa température nga ñëwaat loolu njëriñ bu am am solo la ci tali bi li ci tegu fii ngay gis ci Fenêtre-Samb dafa bari ay famille yoo xam ne dañu dëkk ci kaw yi yu mel ni gannaaw Touba ay gasaan fu ne ci àddina fii fu ne ci euh, euh, ci région de Diourbel dañ fay jóge am xew ñëw fii wara a dellu seen dëkk te du leen yàqal dara loola léegi alhamdulilah da ngay am ay gan doon wut ay sareet di dajale ay sareet lu ne nga di ko def waaye léegi loolu yëpp yàlla def na alhamdulilah rabbil alamin loolu mu ngay am njëriñ lool ci ñun loolu itam ba tey fii ci fenteel Somb dañuy fay eh, dañuy béy légume maanaam mbéyum noor bi fii itam alhamdulilah danañ fi béy sunuy salaat nga bëgg ko yóbbu njaareem muy problème boo naajee doo ko mën a yóbbu mu yàqu eh, te léegi boo taxawee léegi dem wut sa salaat. ñëw taxaw ci tali bi wala sa. wala sa naana. wala sa soble. wala sa suppe wala sa tomate. lépp loola njëriñ la boo xam ne bi tali bi ñu nu koy defal. Babacar Sall doon ci jokkoog yéen fii ci Fentel Somb nekk ci commune bi Ngoye département bu Diourbel.